FM waaw maa ngi leen di fay eh, dem mbégte ci ñëw bi ngeen ñëw fii ci sama kër eh, maa ngi seen mbégte mu ngi eh, ginnaaw ma sant yàlla di sant Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di sant sama sëriñ di sant njabootu maam Cheikh Rahma Fall gépp maam Cheikh Rahma Fall di nuyu njabootu sëñ Tuubaa gépp di nuyu sëñ Mouhamadul Habib Mbakke ak sëñ ak sëñ Aziz Abou di nuyu eh, mbooleem eh, xalif généraux di ziar ñëpp eh, di nuyu xalif di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp. di leen di leen sant di nuyu leen ñu ñu fi teew di eh, mi journaliste bi Ngoye njaay ak eh, cameraman ni nga àndal ak directeur journal bi di nuyu Sénégal gépp ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ak ñi nga xam ne ñu ngi fii ci réew mi mel ni dañ la fekk ci sa kër euh, nga ci ñëwaat. waaw feebar bi ku nekk lay dab waaw yal nañ ci yàlla musal muccal ñu ci waaye bu ñëwee rek ñëw na te nu ne la mën a ñëwee ah tànk buy métti daal moo ma dal njëkk mu def ay pourtant xam naa bu yàgg la. di génne ay dët ak ndox daal néew yi ba jaaxal ma daal di génne dët bu bari vraiment sonal ma lool mu ma daan génn sax dañ ma daan dañ ma daan yenu boo defee jël taxi mu gaare ci buntu kër gi ñu dugal ma ci pour ma dem defi samay euh, pour ma mën a dem defi samay mën a faju ji la dalee ak léegi jot ay ndimbal. waaw maa ngi jot ay ndimbal waaye nag am na ñoo xam ne moom ay wax daal bari na ci même am na ku ma fi woo ne ma ay dóor ay dóorkat bari na ci am na ku ma fi woo ne ma daal mi ngi tudd Mbacke Dioum Viviane moo ko yabal pour pour damay yëglu rek ne ma Mbacke Dioum la tudd. xaw ma ndax Mbacke Diouf la tudd ou pas comme xam dafa doy waar yu mel noonu foog nga teel ko pour en cas waaw ne ma Viviane daal man def maa bëgg a jàppale eh, léegi eh, naa yónni sama doom démb fekk bërki biig la ma woo naa yónni sama doom ay midi eh, bu ko defee li may jàppale mu jox ko heureusement que sama doom dem jàngi ndax mi ngi fële mi ngi ci mi ngi Duda Seck euh, ci kii euh, Adolphe Coly fa lay defee musique chanteur léegi bi nga xam ne euh, dem na jàngi ma ne ko ah kooku dafa taxee jàngi mais dama bëggoon fekkee mën na ma ko envoyé par par Orange Money mu ne ma benn problème ma toog lu yàgg envoyé waxuma dara ma woowaat ko. mu ne ma Viviane day nelaw ba sànq ci suba daal même envoyé naa ko audio mais ba léegi répondre waaw dóorkat yi daal dañu bari may may may yëglu ngir pour on sait jamais waaw loolu daal laa moon loo xam ne dama ko dama ko dama ko doon wax waaw maanaam da yaakaar ne xëy na dina am ñoo xam ne dinañ la laajal xaalis ba pare def ko seen poos waaw lu nekk daal xam na ci waxuma la jël xaalis def ko seen poos waaye mën nañ jël seen numéro def ci ay tot tot wala ñu def ci leneen lu naka su dul noonu daal waaw moo tax may yëglu waaw ki mën a def loolu mën naa def leneen waaw. waaw mu mel ni sa biir wax sànq danga nga ne Youssou Ndour ah, jot na jàppale dara ci wàllu faj. waaw Youssou jàppale na ma ci kër gi ndax eh, agence bi bu ne amee naa ko un million cent cinquante mille Youssou ne moo koy fay loolu. Eh, dama ci ànd ak mbégte doxal na kóllëre ah te mi ngi fàttaliku démb te lu jiitu loolu sax yàgg na ma jàppale wax dëgg yàlla ki nga xam ne saa boo amee problème eh, mu taxaw ci bu ko yëgee bu ko ko waxee tabaski ju ne mu yónnee la saxar tabaski kooku yëg na la kon kooku man ma def lu dul di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla Ah, di sant it Mara Dieng bi nga xam ne moom la nekkal muy mu nekk manager am eh, dara wax dëgg yàlla mi ngi ciy jàpp bu baax lu mu yëg moom Mara du ay minute yu su yëg ko vraiment ma di ko sant moom tam di ko gërëm waaw. tey boo gisee artistes yi tey comme ku mel ne yow nga xam ne dañu marqué seen seen époque mënoon way lool marqué seen génération tey nga gis ñu mujj dem ba am ay tolof tolof. tey yow loolu ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma ci am mooy nekk aar bi saturé na am na ñun ñi nga xam ne ñooy enseignants yi ñooy seen doyen yàgg nañ ci musique bi depuis defe naa ne depuis euh, soixante soixante quatorze ba léegi maa ngi ci aar bi am naa sama carte droit d'auteur depuis soixante entre soixante seize soixante dix sept sama carte droit d'auteur BSDA waaw eh, kon nga xam ne yàgg naa ci musique bi boo gisee mu demee nii état moo ci waroon na joo loxo bu yàgg waaye joowuñ ci seen loxo fi mu nekk nii ba ma tëddeeg léegi yàgg na a ah, média baa ngi wax presse bi di wax ñëpp di wax mais du dara loo xam ne eh, ministre de la culture def na ko ci non seulement que defuñu ci dara woowuñu ma sax téléphone te yëg nañ ko waaw xam nga yu demee noonu dafa neexu ci xol yàlla dogal ma bokk ci ñoom SODAV moom lu bon bon am na lu ñu yëkkati na ma jàppale ci lii en attendant jënd ci say garab ñu am leneen loo xam ne dinañ ko kii dinañ ko lijjantiwaat jox loo ko waaye ministre de la culture moom de du dara dara dara lu mu def waaw dara woowuma yëgalu ko yaramam sax waaw tey tey jii mu mel ni loolu mu mel ne sécurité social artistes yi dafay posé waat maanaam saa saa yu ñu feebaree wala ñu am tolof tolof dañ leen ñu wooteel ndimbal ci dëkk boo xam ne waroon na leen mën a am artiste yaakaar naa woote nañ ko mais boobu ba léegi gisaguñu décret d'application wala li nga xam ne mooy effectivité maanaam mën leen a jàppale ba du ñu yegg fi nga yegg waaw li ma seetlu musicien bu ci am problème dañ lay katal wala ay nit ñëw ñu lay lijjanti di la ñaanal ak ah di ndimbal te loolu mën na ñàkk fekkoon ne am na kees boo xam ne wala état bi bu néegee sa jàngoro ah taxaw ci defe naa ne kenn du la xamal kenn bëggul lii toll ci seen yenn circonstances ñu di la ñaanal ak di la mel ne ku la yalwaanal loolu doon li nga xam ne ah, rafet na daal ci koo xam ne borom tur la def lu ne ci réew mi ñu jekk rafetul waaw te aussi eh, am na benn kii boo xam ne groupe boo xam ne tous les chanteurs ñu ngi ci fii ba nu mu tuddati fii ba nu mu tuddati ci diaspora bi bitim réew ñëpp a dajaloo muy ñoom Kine Lamo ñoom Abdouraas ak eh, Cheikh Diakhaté moom mi ngi Europe moom moom mooy moom mooy président bi waaw ak eh, Ndella Xalaas tous les chanteurs yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñoom ñoo dajaloo wax dëgg yàlla dajaleel ma lu xaw a takku lu takku sax laay wax damaa juum yónnee ma ko démb la fi Abdoulaye ñëw indil ma ko xam nga loolu dafa doon lu rafet loo xam ne dinañ neex wax te rafet na ci dégg-dégg waaw kon ñun musiciens yi bu nu booloo nekk benn dina doon loo xam ne dafay rafet ndax itam eh, liñ naan sànqalañ bu ñu bu ñu booloo wat weer noonu daal la mbir yi demee. Mm-hmm. waaw groupe bi nag moom laa doon xool ni mu ngi tudd asmit waaw groupe bi asmit la tudd ñoom Mapenda Seck ci lañ nekk Assane Ousmane Seck tous les chanteurs daal ñu ngi ci biir waaw vraiment te loolu lépp mënoon nañ mënoon nañ ci bañ a fekk waaw ma di leen gërëm di leen sant waaw. Mhm, bu ñu ñëwaatee ci sa carrière musicale nga xam ne da nga marqué espace musical sénégalais bi ak sa way boobu Samina. Samina ba boo amoon looy fàttaliku ci jamono jooju mën naa ne jamono de la euh, lan nga ci gën a jàpp. waaw Samina li ma ci gën a jàpp mooy li ci nit ñi jàpp rek ndax koo wax mu ne la élection yi pour man maa man maa identifier sax élection yi Samina la ñuy wax kon loolu dina doon loo xam ne ah tuutul ci man waaw ba tax na aussi bari na bari ñoo xam ne reprendre nañ ko. reprendre boobu sama dafa la doon loo xam ne lu sedd sama xol la waaw sedd na sama xol lool ndax bokk na ci loo xam ne daf may laat ndax ku ko dégg ci beneen woykat di nga xam ne El Hadj moo ko woy bu ko defee dina ma dundalaat ba noppi aussi ki bàyyi woykat yëpp ah ma nekk fekk ay woykat yu bari mu choisir samay œuvre samay jël ko reprendre ko woy ko defe naa ne loolu waruma ci am dara loo xam ne daf may metti problème bi may metti kay mooy jël ko reprendre ko way ko ba pare jël œuvre bi déclaré ko beneen tur mhm. yaa ngi dégg pour mën a percevoir euh, droit yi euh, au niveau du euh, droit d'auteur ah loolu daf may metti mhm. te doo am soirée wala nga am dara ba jaar fi na ma papa El Hadj am jëndal guro mhm. wala am jëndal warga ak suukar sama feebar bi li may tëdd tëdd ñi nga xam ne reprendre nañ sama marché du kenn ku ma ci woo. wala nga wala nga wala nga déplacé wu ñëw sama kër. waaw. waaw muy mel ni ci reprise boobu noonu Viviane reprendre na ko dans les années de waaw yaakaar naa xam awoon xawoon na am coow bu mu juróon ba ngeen mujjee déggoo nan la demee woon. waaw xam nga loolu man waxoon naa ci li ma ci wax. Mhm. te bu ma sañoon dootuma ci dellusiwaat. Mhm. seetaan na ñëwoon rek. Mhm. ndax Viviane c'est ma te itam bu seytaane ñëwee dikk na waaw ma da ko jéggul nag moom Viviane maa ngi koy baalu bu baax a baax a baax waaw moom it eh, eh, may ñaan yàlla gën a wéral baatam ndax wax dëgg yàlla nit bu baax la waaw aw ma dara lu ma koy sikkee seytaane rek a ñëw waaw waaw euh, bu ñu kii bi Samina génnee ay at après euh, El Hadj Faye tuuti ci seen musicale bi mu mu ñëwaat ñëwaat ci seen musicale bi bi mu ñëwaatee lan moo ko gën a marqué maanaam bi nga waatee beneen cassette ñëwaat. waaw bi nga ñëwaatee génnewaat beneen cassette beneen cassette jamono sax solo la eh, wax dëgg yàlla way naa ci benn morceau boo xam ne def na it muy sama xalaatu àdduna. mooy bi may way ki la yéene kurpañ sa bët daa bëgg nga gumba. ki la yéene sa gémmiñ daa nga jaal xam nga aar bi nag du ëmb day xëy wasin mën nga génne benn <coughs> morceau boo xam ne tub lay doon eh, ci diggante bi sax mën nga fi génnewaat yeneen yoo xam ne day jaar jàll. waaw ndax mën na bañ am promotion ci mën na bañ a daal eh, neex nit ñi tellement. Mm-hmm. waaye nag yàlla mën naa dogalaat nga woyaat meneen morceau mu doon it saf sene saf àdduna waaye boobu tam bokk na si bi nga xam ne neex na àdduna am na boo xam ne génn naa ko moom lañuy moom la kii di def euh, moom la def euh, générique am Sud FM ah bu defuma publicité nag muy musaa Thiam muy bi may way naan euh, suñu réew mi dañuy gërëm ki xam nga taal bi ki taxa na toog mbaam nopp ya rëy na lool waaye bu ca boole woonu dégg ya du ko dal defe naa ne am na waaw waaw tabax jàkka tabax jàkka baax na waaye nañ tabax jikko yi wax naa ci lu bari daal nga xam ne ah yeete la kon bu yàlla dogalee ma def loolu ah defe naa ne comme morceau yi yi fi jàlloon am bës defe naa ne comme yooyu rek lay war a tolloon ndax wax dëgg yàlla wax naa ci te loolu la réew mi soxla waaw loolu la réew mi soxla waaw. mu mel ni fan yi ci jamonoy feebar bi corona am na benn fond bu ñu génne jox ko artistes ce que El Hadj Faye jot naa ci loolu. waaw jot naa si jot. waaw muy euh, milliards. nangam jot naa ci waaye jot ga moom daanaka nañ ci jot amul benn solo ndax eh, kii dafa bari association yi ñu jox leen ay cinq cent millions ñii jox leen man daal affaire boobu jaaxal na ma te kenn ñooñu ñu ci bari booy seet gisuñ ci dara te dañoo percevoir foofu dañuy dañuy jël jël foofu xaalis ba pare ñëwaat sodaaf ñu fay leen gis naa ci ñu bari ñëwaat sodaaf ñu jox leen ci xaalis boobu loolu nag doon loo xam ne lu ma lu la ba noppi sodaaw lim mu ci jox man dey ak samay morom ya fa teewoon yëpp dafa mel ni ngénte lu ngénte lu tas daal dafa feesoon del del del del del ndax yooyu tabaski la woon te waaw artistes yëpp yaakaar ci seen tabaski daanaka daal ku nekk li nga jot cent trente sept mille cinq cent la xam nga loolu boo ci jënd xaar daanaka doo am sax ndugg moo moo ci boole mm-hmm. waaw waaye sutura si yàlla yaatu na mm-hmm. loolu ñu ne musiciens yi onze mille la ak artistes yi mu jaaxal ma lool waaye comme loolu la yàlla dogal ma am ci loolu sant ko yàlla rek waaw dëgg naa nag euh, président joxaat nañu deux un milliard euh, deux milliards deux milliards cinq cent euh, deux milliards cinq cent yooyu comme milliards yu tegal la ñu séddale artistes yi ñu ci am somme yooyu ma yaakaar ne ku ci ku ci deux milliards bi ñu ko séddalee it ah, ku ci am ñaari junni walla junni santal yàlla paasu taxi waaw. kon daal waaw ah, ma di ko gërëm nag président Macky Sall ndax jàmbaar la def na effort. waaw jàmbaar la lool waaw. kon daal xëy na yow yaakaar ne xëy na bi bu njëkk ba euh, jaarul yoon. ah waaw foofu loolu laa mën a wax ndax onze mille artistes fii ci réew mi ah, dafa doy waar doy na waar lool te li ñu percevoir du dara ah boo toogoon sa kër sax nit ku baax wala géer gu baax wala ah may la ko waaw ah, ñu séddalee nga di ci loolu ah maanaam daal li ma mën a wax lekkoo ba nopp sa gémmiñ niin waaw ah, man daal laa gis sa mbir ah. waaw. mu mel ne milieu musique dafa mel bari na coow. lool euh, bari na ay jafe-jafe ñu gis kenn ci sa njaboot ku mus a génn ñu ne doomu El Hadj Faye la loolu mën nga ñu ko dëggal kuy way waaw sama doom la te bari naa ay doom yuy way am naa doom ju ñuy wax Tara Faye am naa euh, Kina Faye waaw ñu doon ay waykat wax dëgg yàlla dañ naan wax doonoo la mbaam Kina Faye waaw def na benn single benn morceau papaam Youssou Ndour la reprendre mhm. waaw defe naa fan yii yëpp ñu ngi koy jàllale waaw bi ma njëkkoon jël mooy nijaay nijaay bi <coughs> te boobu maa ko woon depuis étoile de te aussi maa ko waaw topp média yi ñu di ko teg waaw dafa nag aar bi moo doy waar ndax fi mu ne showbiz bi eh, lu sotti am borom eh, surtout yenn manager yi dañ naan dañ lay jàppale fekk na jàppale wuñ la dañ lay exploiter ndax soo bis bi boo amul xel nag dañ lay féewale ak say say say waajur waaw dañ lay ak say waajur waaw ndax fi nekk nii dangay dem ba nga xam ne boo amul xel dangay ngay jéem a jël sa yoonu bopp dootoo dégg wax waxe waajur dootoo dégg ndigaleel waajur da dem sa yoonu bopp bu ko defee nag ah ku ci am xel di sa waajur bàyyi la rek seetaan la te xam ne ah dina ñaanal nag te xam ne lu ci law teq leen man daal noonu naa gisee mm-hmm. mu mel ni yaa ngi wax waxu étoile de Dakar kon loolu xam naa ni yàgg na mën nga ñëwaat ci kañ nga dugg ci musique ak ban groupe nga njëkk a intégré. waaw bi ma duggee ci musique 1974 la ndax lu jiitu loolu boobu xale laa eh, di way ci kasa gi di way ci làmb yi <coughs> di way ci mbapat yi jàng xaadir sax dama ko daan def mu ne bu ma la waxee doon jàng xaadir nga ne gongo waaw di way simb yooyu temps simb am na doole loolu bokkul ak simb léegi waaw boobu père père moo fi nekkoon waaw yàlla dogal nag eh, ma ci jógee ma dem eh, ma continuer sama aar dem benn orchestre bu ne ma géej Géejawaay sax suugar ñu di ko wax ñaar orchestra eh, ma nekk fa bu mu yàgg ma dem Miami pourtant damay ambulant pourtant maa ngi dem marché du port ma daan dem Colobane jënd fa ay bagages su ko jëndee ñii retaillé ngi retaillé ñii fóot ngi fóot ñii repassé ngi ko defee ma dem marché du port wala ma dem avenue William Ponty pourtant njaay fukki jaay la woon da koy defar ba mu baax nga paqueté ko emballé defee jaay ko nit ñi ku ko gis ma defee loolu su ma eh, gontee Guinaw Pointe wala marché du port ba ngoon ma doxantu dem Miami ma demee Miami Ibra Kase eh, jël ma eh, daal may déglu ma way heure teel a dem nag mu déglu ma ma way ci la mu Ibra Kase jël ma nekk fa man Youssou Ndour Alla Seck Assane Thiam Abdou Fall Matar Gueye ak Baba Nabe ak Alfousseni Kanté ak Idi Kassé loolu yàgg na waaw ay euh, vers les soixante quinze soixante seize na loolu waaw ci jamono yooyu après nag yàlla dogal Youssou Youssou jóge fa man ma delluwaat ñaari orchestra Youssou jóge Miami bi mu jógee Miami ci la euh, amoon benn groupe bu ñu daan wax euh, sabor rek ku ñuy wax saw sagor papa yu mi saw moo ko yoroon waaw ñu nekkoon cité Asegna bi nekk fële Derkale eh, yàlla dogal eh, Youssou dafay contact am gis saboor eh, mu jox ko instrument yi waaw yàlla dogal bi nga bu ñu ko joxee instrument yi xelam newul ci kenn man boo yooyu jamono dellu naa ñaay orchestre xel nekkul ci kenn mu daal di def lettre jox ko saw saboot papa yi ummi saw ne ko man daal benn waykat naa xam ne bu ñëwoon seconde ma eh, affaire dina baax lool dinañ dépassé fi yëpp saw saboor ma jógee fekk ma bu yooyu temps maa ngi joué benn boîte bu nekkoon fi ñu di ko wax Madison Géejawaay fii mu joué ba tas ñëw tëdd dina law yeewu fekk sama yaay sama yaay ne ma am na ku fi ñëwoon dana saw saboor la tudd nee na nga fekk leen rue 33 ndax dafa am moo ko Youssou Ndour daal ñoo la soxla ndax dañoo bëgg a def daal bëggoon bëggoon nga ñëw euh, seconde leen yàlla dogal bi ma yeewoo ma daal di dem foofu au lieu que ma dem foofu sax comme xam naa que ñoom Youssou di quinze angle euh, corniche ma dem fekk Youssou ñu ànd ah keroog sax dañoo doxee rue quinze ba rue 33 ci leen toog waxtaan regroupé seen musiciens yi nga xam ne ñoo nekkoon euh, Miami ñu regroupé leen daal di waxtaan daal euh, ci lañ formé étoile de Dakar waaw ci lañ formé étoile de Dakar doonoon nag orchestre boo xam ne adduna yëpp xamoon na leen waaw fépp lañ daan nekk benn bokk ndeyu baay loolu nag doonte que sax nekkatuñu waaye relation yi mi ngi fi ñi nga xam ne ñu ngi dund ah relation yi mi ngi fi ñu ngi ji yokkoo ku ci mel ne Youssou Ndour Abdou Fall mais yàlla dafa dogal nag euh, euh, ñu ci bëri génn àdduna kon nag li jar a sant yàlla bari na waaw yàlla dogal euh, relation yi dox ba léegi sama digganteeg Youssou tey la gën a ratax ndax lu mu yëg ci man vraiment taxaw ci dëgg yàlla kon daal étoile de Dakar daa waaw dafa mujj tas. waaw mais maa nag mel na ne tasul ndax jokkoo bi li am solo rek mooy ñu ngi jokkalante di def deflante di demlante di jëflante ay teraanga daal waaw. kon bi étoile de Dakar tase yow fan ban euh, groupe nga mujjoon nekk. waaw bi étoile de Dakar tase Youssou dem super étoile formé super étoile ma kon dem sama étoile 2000 ndaje bu neexee dafay tas bu naqaree dafay tas loo gis si àdduna dafay tas jëkkër ak jabar sax danañ dem ba ku ne tàggoo. ndax ku la ñaan na yàlla ñu suul la waaw ñu suul la nga ci ci biirub sëy waaw nga dem waaw wuju sunu borom sa borom kër bu la jiitoo muy noonu waaw lu gis sa adduna day tas adduna bii ñu ne sax day dem ba jeex tàkk waaw. est-ce que mën nañoo xaar El Hadj bu tey bu génnee ci yi yii mu nekk mu génnewaat kaset ñu gisaat ko ci scène musicale bi. waaw ndax xam nga musique bi saturé na te fi na ay mag lañu. daanaka li ñu waroon prouver prouver nañ ko te itam xale yi il faut ñu bàyyi dañu jël seen wàll aar bi tool la ku ñëw da ngay béy sa waar dem am na ñu fi ñu fi njëkkoon yoo xam ne dañoo ñëw def fi li nga xam ne eh, eh, bàyyi fi ay trace jóge fi tey waaw wala ñu dem ba xam ne toll nañ as boo xam ne mënatuñ ko ndax fi ne ñun ay mag lañu duñ duñ duñ dem boîte de nuit di jouer ndax bu fa demee suñuy set dañ fa fekk ak suñuy setaat wala suñuy doom waaye nag mën nañoo yëngu ci trad moderne bi wala acoustique wala traditionnel mën nañ cee yëngu ah te nag comme ni ma la ko waxoon ci début bi rek aar bi doom bi day xëy wasin mën naa xëy def benn morceau wala ñaar wala single génne ko mu saf àdduna boo su boobaa mën naa am ay contrat dafa ay af tëwëg wala ay mhm. moom kenn moomu tey boo amoon conseil booy jox euh, génération jeune génération bii door a dugg ci musique ban conseil lay nekk. waaw xanaa ñu gën a góorgóorlu rek. te xam ne euh, aar bi kenn moomu ko gën a góorgóorlu te nag boole kook di gëstu di seeti seen bàyyi waykat yi fi newoon ak seen maam yi waykat yi fi newoon ay fi nekk sax wax ak seen yaayu artistes yi waaw loo xamul. wala koo ci jël morso nga dem ba moom demandé ko autorisation bu fekkee ne mel doon na ko mel ne man ne la jox autorisation ndax bu dara bu boobaa droit yi ci yow lay wëlbatiku rek droit d'auteur yi waaw bu ko defee aussi bu fekkee ne nit nga te am nga ngor lu ci ruuse ah nga mën na ne yër bu dee junni mu ne yëkkati ñaar fukk sax na xaaral ma seeti sama papa El yëkkati ñaar fukk yu jox ko ñam kat ñami ñamu njulli seen bay ca waaw kon bu yàlla dogalee loolu ah li ma leen di ñaax rek moo ñuy def loolu te jox ay artistes yu gëdd te di leen seeti waaw loolu daal laa leen ñaax ñuy gëstu waaw waaye nag fi mu nekk nii toll nañ jamono joo xam ne génération bi déglootuñu ay way naxum rek nga sabar yi rek tama rek ñuy taaw tel teli duñ déglu way mi si musical bi moom ñëpp a mën a jouer léegi waaw musical ñëpp a mën a jouer boo gisoon sax kuy nga accompagner ko day neex waaw boole koog sabar yi xumb waaw kon nag euh, ba pare jikko ndax génération bi ah, su ma yeboo ne nañ ma baal nag dafa mel ni dañoo bëggatul lu baax waaw ndax fu mu nekk nii Alaaji Fay bu génnewoon ay way yoo xam ne yu yeetale yu leen amal njëriñ duñ ko déglu waaw wala buñ ko déglu benn yoon na waaye teggil kii waaye bi nga xam ne dafa màgget nangam nangam tegal ma waaw wax yoo xam ne yu kenn xamul tegal ma yu yu kenn xamul waaw bu li ma naan yedd yërëma ko gën te génération bi koy yedd ku ne yaa koy xas ndax koy yedd day dugg ci nopp bi jàll ci ba ca des. kon mu mel ne génération bi xumb bi la ñuy gën a kii que paroles yi nga xam ne da ngeen ko daan def muy yeete bi. waaw bi am na ci ay mag ndax toll nañ foo xam ne léegi ah dañ ne doomi léegi ah ay kanaara lañu njaboot léegi ay kanaara lañ da nga leen di jiital topp seen ginnaaw tax man am na ay mag eh, mag yi am na si mag ñoo xam ne lu seen doom bëgg rek bëgg nañ ko waaw te defe naa ne dem nañ sax ba ne léegi musique bi léegi na ko xale yi mën a woyantu rek wala na ko xale yi mën a waaw na ko waaw yi mën a woyantu rek bu ko mënee woyantu moom bu ko defee li ci des fond musical bi dëgër fond musical surtout te léegi musique bi moom ñëpp mën a musique ñaar ñett ñoo gis ñi ngi ñi ngi ci musique bi waaw ñi ngi joué guitare ñi di joué clavier xaw ma lu jafe daal waaye du musicien waaw ba tax na loo ci wax li ma la waxoon dee ay jooy sax nga nga ci nga dugal ci biir day neex sabar yi rek tama yi rek bu ko defee mu neex a fecc loo ci wax day day day day day dem ko defee ak promotion bi te aussi bokk na ci yenn animateurs yoo xam ne bokk nañ ci yàq aar bi ci ñi ma ko sañ wax ay du ñëpp nag yenn animateurs yoo xam ne dañuy jël benn son bu amul bopp amul genn di ci bëgg a tànkal gu ñi guddeeg bëccëg waaw loolu bu demee ba dugg ci nopp yi dañuy defe ne loolu rek moo fi nekk waaw. kay El Hadj Faye waa FM ak Rewmi Quotidien ñu ngi lay gërëm ci suñu dalal bi nga ñu dalal waaw a ah, ma di ci am mbégte lool ah di nuyu li ko doole ci directeur bi ba ci journaliste yi ak euh, les animateurs ak euh, caméraman yi ak ñi nga xam ne ba ci ñi nga xam ne ñoo fa nekk sax euh, yor liggéey bi foofu liggéey yu ndaw yi maanaam daal benn liggéey ndaw sax ménage yeeg yooyu waaw ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant leen gërëm di nuyu diaspora bi di leen gërëm ak ñi nga xam ne ñoo na ci réew mi te di leen xamal ne mm, aussi mbas mi moom mi ngi fi mbas mi mi ngi fi ku ko ku ko gëm ak ku ko ku ko gëmul yëpp mbas mi mi ngi fi ñu respecté mesure barrières yi di laal gel ah, di takk masque waaw ndax fi mu nekk nii ah, affaire bi doy na waar saa su ne nga gis ñu lay ciy tàggee. ay eh, ay nit ay personnalité eh, di la di wax ñu feebar bi dal di leen wane ah eh. xamal ne daal feebar baa ngi fi ñu nga xam ne nag dalagu leen maa ngi leen di ñaanal yàlla mu leen feebar bi dal ñi nga xam ne nag dal na leen ba ñu tëdd ci lalu hôpital yi ak yàlla na yàlla seen bopp ba ñu génn ak jàmm ñi nga xam ne nag wujji nañ ci suñu borom yàlla na leen yàlla ah, xaara aljana waaw loolu daal laa amoon lu may wax. jërëjëf jërëjëf waaw.